nga sa ñaari waajur bëggee yóbbu ci mooy mel ne bokkaale yàlla ak dara su boobaa bu leen topp kon nag sa waajur loo ko fonk-fonk rek bul ko topp ci lu nuru xeetu mooy yàlla waaye lu baax loo ko mën defal nag nga defal ko ko ngir yàlla nu fàttaliku ne balaa kenn sañ a tukki tukki boo xam ne bakkanam mën na caa des faaw daa war a tàggu ñaari waajuram bañu may ko ca ndigal te it may ndigal ga na ànd xol bu sedd buñ ca boolee di jooy jooy yoo xam ne ñàkk pexe tax rek ñu bàyyi ko waaye gënalu leen kon du sañ a dem waxaat nañ ne tukki gaal yi nga xam ne moo xew ak lépp lu ko noo ci la bokk nee nañu am na ci hadiisu Abu Hurayrata koo xam ne daa am lu ko rawan ci topp ay waajuram ca ba ñuy dund su ko bëggee dabu day bàyyi ba guddig alxames guddig alxames mooy àllarba bu jant bi soyee ñu ne suba la alxames mu daal di julli ñaari rakka rakka bu ne bu jàngee faatiha ba noppi na ca teg aayatul kursi yi juróomi yoon qul huwa allahu ahad juróomi yoon fàllaqeeg naas yi juróomi yoon bu sëlmalee ci ñaar ràkk ya mu jéggulu yàlla fukki yoon ak juróom daldi ne suñu boroom lii nag def naa ko addee yi saa ñaari waajur lii nee nañ ku ko def rek dal ngay topp sa ñaari waajur lu la ci rawan mel na ne dabu nga ko waxalal mu'min war na aji gëm an yastaxfira muy sàkkul njéggal li abooy yi ñeel ñaari waajuram yi al mu'minayni ya di aji gëm nee na sa ñaari waajur foo toll war nga leen di sàkkul njéggal ci yàlla ñaan yàlla mu jéggal leen rawante ne nag du la jiitoo alaaxira ci këru dëgg ga waxaalihi war na ko moom aji gëm ci muwaalaatul mu'minina méngoonteeg way gëm ñi yàlla wa nasihatu ak laabire laxum ñeel leen ab julit daa war a fonk mbokki julit ñi di dimbalenteeg ñoom di leen laabire lépp lu mu xam ci lu baax loo xam ne luñ ko waxee ñu mën caa jariñu mu xamal leen ko jariñu ca lu mu xam ne safaan bala mën na leen a lor te mu xam ko mu xamal leen ko ñu mën koo moytu wala yabluxu du jot ahadun kenn xaqiqatal imaan yi dëgg-dëgg gëm xataa yu xibba ba te mu soppee li axiihi ñeel mbokkam al mu'min may aji gëm maa yu xibbu la mu sopp li nafsihi ñeel boppam kazalika naka noone ruwiya la nett leef ko an rasulillahi jële ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonante bi nee na balaa kenn am gëm gu mat daa àgg ci bëggal mbokkum julitam lépp lu bëggal boppam balaa kenn am dëgg-dëgg gëm daal daa àgg ci lépp lu bëggal boppam rek ci lu baax bëggal ko mbokki jullitam ñëpp waxaalihi war na ko añ yesi la muy jokk raximaho bokkam nga nee na ku gëm yàlla day taxaw temm ci jokku bokk ndax su boroom dafa fonk bokk lool te santaane ko wa min xaqli mu'mini bokk na ci àqi aji gëm xal mu'mini war aji gëm an yusallima mu nuyu xalihi ci moom ndeem isa laqiyahu ndeem tase naa moom waaye awoodahoo te mu koy seeti mooy te mu koy yuug fekk yuug mooy rek seeti isa marida ndeem tawat na waaye shammitahoo te mu koy ndokkeel isa xatasa ndeem tisli na waaye sharate muy teewe janaasatahoo tàddam nga isa maata ndeem faatu na waaye xafadahoo te mu koy wattu isa xaaba ndeem fàddu na fi sirri ci lu nëbbu wal xalaaniyet ak ci lu feeñ nee na àq yi mu wax nii jullit bu ne amel na ko moroom ma te mooy bu taseeg moom nuyu ko su tawatee mu dem seeti ko su tislee mu ndokkeel ko ndokkeel mooy bu tislee ba wax alhamdulillah ne ko yarhamukallah bu faatoo mu teewe janaasa ga teewe jullee ga teewe jullee ga teewe rob ga bu mbokkum jullitam génnee ni ki tukki mu sàmm ko bu baax a baax lu mu ko mën a sàmmal ci waa këram ak alalam mu def ko te it moytu koo jëw mbaa ràmbaaji ko kenn mbaa di ko wuutu ci genn anam gu ñaaw wala yaxjura te du tong axaahu mbokkam ma fawqa salaasi layaalin lu kawe ñetti guddi araam na ab julit di jàmbu mbokkum julitam lu ëpp ñetti fan ñetti fan yi moom maye nañ ko ndax dañuy jàpp ne doomi aadama yàllaa ko bindeeg matal yi dana mer ba nga xam ne du mën a ñàkk jàmbu kooka waaye nag kon jàmbu ko bu weesu ñetti fan su matee ñetti fan rek na daal di gaaw nuyu ko jàmmanteeg moom waxanteeg moom te jublu caa jeexal jàmbu gam ko jàmbu woon su ko kooku fayee waxanteeg moom moom itam kon ñoom ñaar ñëpp jàmbu ga jeex na ci ñoom ñaar su fekkee nag kooka fayu ko ba waxut ak moom it loola ca moom la waaye moom jeexal na ak jàmboom def na la ko war su fekkee nag jàmbu ga la ko waral ngir yàlla ni ki daam lu mu koy sant ci ndigali yàlla yi te kooka di ko bañ te mënu ca dara mbaa am lu mu koy aaye kooka di ko def te mënu ca dara kon mën na koo jàmbu jàmbu gu yàgg weer mbaalu ëpp weer ndax loolu yàlla tax wasalaamu nuyoo ba yuxrijuhu dana ko génne minal hijraani ca tong ga nee na nag boo bëggee tong gi jeex danga koy nuyu te bañ a yem ci nuyoo ba boo ko nuyoo rek te jublu ca jeexal tong ga mu daal di jeex te nga tekki nag wax te bañ a yem foofa walaa yem baxi du yell la ñeel ko an yatruka mu bàyyi kalaamahu waxam ja baxda salaam yi ci gannaaw nuyu ga nuyu ko kese daal yemale foofu wax ja loolu day mel ni kon la nga jàppoon ci tong ga bàyyi woo ko kon boo ko nuyoo da ngay jàll waxanteeg moom wal hijraan tong ga al jaay su gay aji dagan da ko wax guy dagan rek waaye gu war la fi mu nekk hijraanu zil bidaxati mooy tong borom bidaa aw mutajahirin wala aji njéeméeral bil kabaayiri ci bàkkaar yu màgg ya nga xam ne laaye suru du mën a àgg ilaa xuqubati yi jëm ci am mbugalam wala yaqdiru te du attan xalaa mawxisatihi ci ak waaram aw laa yaqbaluha wala boog du nangu waar ga nee na tong gi nga xam ne moom des koo war a def warugar la mooy bu fekkee ne kooka dafa topp bidaa te mëni su ko caa génne wala muy def bàkkaar yu mag di ko fësal te yow mënoo ca dara ndax doo kilifa goo xam ne mën nga koo faj ne na dañ mu deñ du koo xam ne boo ko waaree mu jàjju bàyyi benn nga xam ne te borom doole yoo xam mënu koo waar mbaa boob xelam daa gàtt ba nga xam ne boo ko waaree itam du xam li nga koy wax ku mel ne kooku moom jàmb ko wan ko gannaaw rek nga cay man wala xibata déet jëw nag fii haatay nit ñi la ñaar fii zikri xaalihima ci tudd seen mbir ne ki nga xam ne daa topp bidaa ni ki tomp pas-pas ci diine boo xam ne dafa soree lool ak pas-pasu diine bu rafet ba noppi di ko njéeméeral di ca woote rek wala ki nga xam ne day def lu araam te di ko fésal mel ne sax da koy damoo ñaar ñu mel nii wax seen mbir rek yem ca dolli woo ca dara jëwle sax waaye araamut niki borom pas-pas bu aay boobu nga di ko xamle ndax kenn bañ ko jaaro yi wala ki nga xam ne day def lu araam te di ko fésal nga di ko xamle ndax bañ kenn seereloo ko ci kanam yoon mbaa kenn seereloo ko ci ab si ak lu mel noonu loolu dara nekku ca waaye nag boo waxee ci ñoom dara lu bokkut ak loola rek mu daal di araam te it buñ ko dee fésal sax ngay saña wax dana ci ñoom waaye bu fekkee dañ koy làq-làqal fésaluñ ko da ngay bàyyi rek ba ñu fésal ko waaye bul wax ci ñoom dara te fekkul ñu fésal ko rawante na nga dégg nit ñi di leen ko waxal rek te xamoo ba xam dëgg laam déet nit ñi rek ñoo koy wax lu mel noonu ëpp naa tudd dara wala fii maa du caa génnu ca la nga xam ne yu shaawaru def na diisoo fii ci moom li ni kaaxi ngir ab sëy aw mu xaala tatin wala jaxasoonte wanax yi ak lu duroog loolu wala fi tajrihi shahidun du ciageenu ci jam seere wa nahwi ak nuroog moom ba tey nee na bu fekkee ne daa am ku lay diisu ci dama bëgg a takk diw soxna mbaa jigéen ne la dama bëgg seeg diw di la laaj ci mbiram kon yoon taamu na la nga ca xam rek nga laabire ko wax ko ko doon ci sax loolu sikk la ci ki muy bëgg a seqal loola waaye yow ma nga lay laaj rek kon nga wax ko la nga ca xam ngir jubloo laabire rek dara nekku ca bu dee bëgg a jaxasoo keneen ci wàllu alal ñu ki société mbaa dem tukki ci àll mbaay dem noonu itam laaj la ca loo xam ca kooka mën nga caa wax rek la nga ca xam te jublu cëg laa bi nga xam jubluwoo ci yàq deram kooka mbaa dara nee nañu sax bu fekkee ne lam lay diisoo yow rek yaa xam la ca sikk faaw nga war ko ko wax ndax laa bi googu lu war lay doon ba tey bu fekkee ne dañoo bëgg a jàpp kooka seere tey wax xam nga ne moom mi mëtul seere kon nga déy àttekat ba ak ñi seq mbir ma xamal leen ni leen ah diw kat bu leen sukkandikoo ci moom nangam ak nangam kat tax na matul seere waaye nag am na sew-sew bu nekk foofu maanaam ki lay laaj loolee mu lay laaj rek ci nga ko sañ a wax la nga ca xam waaye nag doo ca sañ a bàggaale leneen ni ki moom bu la doon laaj ci dama bëgg a takk soxna diw mbaa damaa bëgg seeg diw ndax day ñëw di ma bëgg si lu aju ci wàllu sëy dong nga ko cee sañ a wax waaye doo ko sañ a wax nag leneen lu aju ci loo xam ci kooku ci sikk ci wàllu sàcceg leneen ci yëf yi nga xam dafa aay te ajuwul ci sëy ba doo ko ci sañ a wax dara ba tey bu lay laaj ci wàllu bëgg a jëflanteeg moom ci alal it la nga xam ci kooko ci sikk ci wàllu àll rek nga koy sañ a wax waaye doo ko sañ a wax nag leneen lu aju ci mbirum sëy ak lu demee noonu wa min makaarimi axlaaqi bokk na ci tedd ngay jikko ya an taafuwa nga jéggal xaaman walis ka nga xam ne zalamaka tooñ na la wa toxtee te ngay jox man ka nga xam ne xaramaka xañ na la wa tasila te ngay jokk man ka nga xam ne xataxaka dog na la bokk na ci jikko yu tedd yi nga xam ne yonante bi su borom da ko digaloon te muy lu jafe-jafe mooy ku la tooñ nga baal ko te fekk nga mën a fayu ku la xañ yow nga jox ko bañ koo xañ ku dagg sa digganteeg moom yow nga jàpp ko bañ a dagg sa digganteeg moom wa jimaahu aadaabil xayri mboolem teggi ni yiw wa asimati yi ak ay nosam tatafarax danañu bangaasoo an arbaati ahadis walis ñeenti hadis qawlu nabi te mooy wax yonante bi alayhi salaam man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yaqul xayran aw liyasmut wa qawluhu ak waxam ji alayhi salaam ne min husni islaamil mari bokk na ci rafetul islaami nit ki tarkuhu bàyyeem nga maa lépp loo xam ne laa yaanihi du ko jëriñ wa qawluhu ak waxam ji alayhi salaam lil la si ñeel ka nga xam ne ixtasara gàttaloon na loxo ñeel ko fi wasiyet ci dénkaane ba ne ko laa tax dog bul mer waxawlu ak waxam ji alayhi salaam al muminu ajigam yu xibb dana sopp li axihi ñeel mbokkam al mumin may ajigam maa la nga xam ne yu xibb dana ko sopp li nafsihi ñeel boppam manes naa wax ne daal yu baax yëpp yëpp yëpp yëpp dugg na ci biir ñeenti addis yi dara dara génn ci ñeenti addis yi bu njëkk moo li yonent bi ne woon soo gëmee yàlla gëm bis penc looy bëgg a wax na nga ko teylu bu dee lu baax lu am tuyaaba nga wax ko bu dee safaan ba nga noppi tey soo lame muy benn ñaareel ba mooy ab julit lépp lu ko amul njariñ ci wax ba jëf wala ci yëngutu na ko sori ñetteel ba mooy moytoo mer mer mëntu ñàkk waaye na nga moytu boo meree jëfandikoo sa mer ndax mën ngaa mer tax nga wax mbaa nga def loo xam ne ba addunay tukki doo ko fàtte te loolu nga def sax mën na laa yóbbee te xëy dik alaxira kon nag am na ko lante bi waxal ne ko bul mer mu ne ko dénk ma mu ne ko bul mer mu wax wax yem rek ci baat boobu ne ko bul mer mooy bul mer ba noppi topp sa mer di faj merama bi ko ñeenteel nag mooy ku gëm yàlla daal lépp lu mu bëggal boppam da koy bëggal mbokkum julitam yéen ci addis yi daal mu nee na dara lu baax génn ko yu baax yépp daal dugg na ci biir ñeenti addis ñooñu wala yaxillu du dagan lakka ñeel la antata xam ma da ngay tey sama albatili dégg ak neen kullihi léppam wala an tataladdada tu caageenu ngay bànneexu bi samaahi kala mimraatin ci déglu waxi jigéen laa taxillu coj du dagan lakka ñeel la wala samaahu cheyin du caageenu dégg dara mbaa déglu dara minal malaahi ci xeeti foyukaay yi wal xinaay ak way wala xiraatu quraan yi du caageenu jàng al quraan bi loxooni ca daaj ya al murajjahati yadi ñu deltonte ma yadi neexal rek katar ji xinaay ni ki deltonte ak way nga xam ne kon wali yu jàlla na defi màggal kitaabullahi téereb yàlla bi alxasiisu bi aji tedd an yutla te mooy bu dee fi ko jàng illaa bi sakinat ndara ci ak dal wa waqaarin ak wegu wa maag la nga xam ne yooxun dana wóolu ne an allah naka yàlla yardaa dana gërëm bi ci moom wa yu qarribu te muy jegeñale minhu ci moom maxa ixdaaril fahmi ànd ak teewal dégg ga li daalika ñeel loolee nee na yow jullit bi daal da ngay téye say nopp bañ cee déglu lu aaye déglu lislaam day teel a aaye lépp loo xam ne mën naa andi ak mooy yàlla moo tax mu ne góor du sañ a déglu waxi jigéen di ca bànneexu ndegam jigéen ja du soxnaam nga xam ne ak jaambur la ci moom ndax dañuy bañ bu amee bànneex ca na jigéen jay waxe seytaane man koo ñotti ba mu bëgg am bànneex ci jëmm ja te bu boobaa mu daal di doon lu araam lépp luy andi lu araam rek lislaam da koy teel a aaye ca cosaan la balaa sori teewul nag góor ak jigéen ku ci yittewoo wax ak moroom ma mën naa wax ak moom soxlaam lu aju ci way ak misika yu demee noonu nag boroom xam-xam yi dañ cee yàgg a wuute démb njëkk tey daa am ñu koy araamal bu wér-wér am ñu koy daganal ba ci jamono bii nu toll sax boroom xam-xam yi ubbee ñu leen di laaj am na ci ñu koy daganal am na ci ñu koy araamal am na ñu takk ne bu fekkee ne booliwuñ ca benn jumtukaay te wax yéen ñi wax amu ca dara lu aay te it ku ko déglu du la ji ñax ci mooy yàlla su boobaa kon dagan na waaye baat yi ñuy wax moom bu dee baat yu araam ku ne xam na ne lu araam la bu fekkee ne mën naa tax kenn defu mooy yàlla it ba tey kon ñu ne lu araam la waaye daal ndegam baat ya baat yu tey la yu baax la te booliwuñ ca benn jumtukaay kooku day neexantal rek noona nga xam ne moom du yóbbu kenn ci mooy yàlla am na ñu ne kon dagan na waaye moom daal dañ mbir moo xam ne dafa bari ay wuute lool lool dafa mel ni nag li ëpp ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy faral di tontu ci googu wàll ci waa Màkka yi ñoom dañ koy aaye bu wér-wér li ëpp ci ñoom daal dañ koy aaye rek dogu ca te duñ ci am genn teqale li mu wax ne sañee suta jàng alquran di ko daaj ni ñuy daaje way loolu moom mooy bu fekkee ne day neexantal alquran ja di ko daaj ba ca yokk lu ca bokkut ba di ca wàññi lu ca bokk moom araam na waaye nag bu ko dee neexal te teewut ma ngay rafetal njàngin wa yokku ca dara wàññiwu ca dara kon nee nañu lu ñu sopp lay doon ndax hadis ba daa wax ne laysa minna man lam yataxanna bil qur'aani moo tax mu ne alquran dañ ko war a fonk boo koy jàng nga ànd ak dal ànd ak yaru ci anam goo xam ne jàpp nga ne nii neex na yàlla te dana tax yàlla ñoddil la jegel la boppam bu ko defee itam booy jàng na ngay jéem a teewul la ngay jàng di ci jéem a yokk ak xam ndax dégg ga rek moo ci am solo kon nag booy jàng na ngay setantal bu baax ndegam boo setantalee xam del jéem a setantal ñu wax ni sax jenn laay joo setantal moo gën wàcc kaamil bi yépp te setantaloo ko wa min al faraidi bokk na ci farataye al amru digle bil maaruf yi ci njekk mooy lu baax wa nax yi ak tere xalil munkari walis lépp lu bon xalaa kulli man ci képp koo xam ne bu sita tàllaleef na yeddu xoo loxoom fil ardi ci suuf wa xalaa kulli man ak ci képp koo xam ne tasilu dana àgg tasilu dana àgg yeddu xoo loxoom ila daalika jëm ci loole fa in lam yaqdir dem attanut wa bi lisaanihi kon ci aw làmmiñam fa in lam yaqdir dem attanut wa bi qalbihi kon ci xolam nee na digle lu baax aaye lu bon kat bokk na ci fardu kifaaye yi dana am koo xam ne sax moom day nekk ci moom faratay jëmm te mooy képp koo xam ne yàlla may na la doole ci kaw suuf ba xam nga ne lii bon na te mën nga koo dindi ne na dañ mu dañ kooku moom boo ci doon nitloo rek def nga lu araam su fekkee nag xam na ne loola lu bon la waaye mënu koo dindi ci doole kon su jamonee wax ba ñëpp xam ne loola kat lu aay la na ko wax bu baax a baax ba ñëpp xam ko jaanam door a wàcc su fekkee nag bu ci waxee mën na caa amee lor ju mettee metti kon na ko naqari ci xolam ba yàlla xam ne moom mii lii naqari na ko ci xolam te su ko mënoon a faj faj ko te mu daal di tàggoog ka nga xam ne moo nekk ca lu aay loolee ndax boo xasee xam ne lii aay na te mënoo ca dara da ngaa daal di war a tàggoog ka ca nekk. kon ñetti anam la lu aay loolee nga xam ne xam nga ne aay na yàlla bëgg ko boo ko mënee dindi ci doole war koo dindi ci doole su fekkee mënoo ko waaye mën nga caa wax nga wax ca ba ñëpp xam ne loolu lu aay la. su fekkee mënoo caa wax nag na la naqari sa xol te nga daal jéem a tàggoo ka nga xam ne mooy def lu aay loole wala bu dee mbooloo ñooy def lu aay loole wa fardu farata la ala kulli muminin war jëpp ay jigam añ yurida muy namm di kulli xawlin jëpp wax waxambalin ak jëf minal birri ci topp wacce laa jëm yàlla ja alkarimi ji aji tedd wa man araada ku namm bi daalika ci loolee xayrullahi ku dul yàlla lam yuqbal deeful nangu xamaluhoo jëfam ja nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla da nga góorgóorlu ci lépp looy wax ak lépp looy jëf yàlla rek tax ndax muy wax muy jëf lu mu baax baax bu fekkee namoo ci yàlla yi kese yàlla du ko nangu doo ci am tuyaaba te bakkaar sax nga cay am ndax loo jëf te yàlla taxut kon da nga cee sonn ba noppi jël nañ bañ ca am tuyaab waaye da nga cee far gàddu bakkaar kon fexeel ba looy wax rek yàlla tax looy jëf yàlla tax war yaaw ngistal ashirku mooy bokkaale ga al asxaru ga gën a ndaw nee na ngistal baaxut ndax na ko addis ba waxe ak bokkaale gu ndaw la bokkaale gu mag moom mooy booy mooy boole yàlla ak dara fab cërub yàlla boole ko keneen ngistal nag moom mooy jëf ja muy jëf yàlla ki si taxut ma ne kon daa boole keneen mbaa leneen ak yàlla ci jëf ja ci ni ko addis ba andee nee nañ addis boo xam ne ne inna axwafa ma axaafu aleykum ashirku al asxar qaalu ya rasulallahi wa ma shirku al asxar qaala arriyaau li ma gën a tiit ci yéen daal mooy ak bokkaale gu ndaw ñu ne ko lan mooy bokkaale gu ndaw yonante bi mu ne mooy ngestal wattaw ba tutuub faridatun farata la min kulli tambin ci bépp bakkaar min xayri israarin ci lul ak nuuru nee na tuub war na ci mu kàllaf saa yu nekk mu di ko def ndax koo xam du jàdd benn yoon daanaka amut néew bari rek waaye daanaka ku dul def bàkkaar néewaana kon nag ab jaam fu mu toll daa war di tuub tuub gu sell tey mooy too nuur ca xeeti mooy yàlla yi wal israaru nuuru al muqaamu moo di sax ala zambi ca bàkkaar ba wa atiqaadul xawdi ak fasa dellu ilayhi jëm ci moom nee na nuuru gi wax mooy sëgg ca bàkkaar ba ak dogu ci delluwaat ci defaat ko loolu ëpp naa def wa min tawbati bokk na ci tuub raddul mazalimi delloo tooñaange ya ku nar a tuub nag bu dee digganteem ak boroomam moom bu rëccoo rek dellu ci boroomam fas yéene bañ caa delloo ti mukk mukk rek te bàyyi ko fa saas ndegam ma nga ca woon kon tuub ga mat na waaye nag bu fekkee àq yi doomi aadama da caa aju moom faaw day aajoo mu delloo àq yooyee bu dee alal te borom nekk fa mu delloo ko ko bu fa nekkul mu jox ko way doonam bu way doon yi nekkut mu saraxel ko ko bu dee ab der bu mu yàqan bu fa kooku nekkee mu jégglu ko bu fa kooku nekkul nag nit ki faatu na sooy ba mu baril def lu baax ndax bu ëllëgee ba taseeg moom ci àllaaxira rek am lu mu ko fayee ndax yàqub der moom daa doonut luñ mën a doon bañ di ko jox ña koy doon na wajitinaabul maharimi ak teet yu araam ya wa niyatu ak yéene an laa yaxoode ci mu bañ a delluwaat ci bakkaar ba daa njëkk wax ne tuub kat dañ cey boole delloo tooñaange mu ne ak itam nag bàyyi yu araam yi dogu ci bañ caa delloo ti mukk mooy booy tuub te fekkan ngay def lu araam lu yàlla bañ nga koy bàyyi fa saasa dogu ci bañ caa delloo ti mukk mukk du teen bu ko yàlla nattoo ba mu delluwaat ca itam mu tuuba tuub gu sell rek dogu ci bañ caa dellooti ba kër yàlla di ko gindi rek mu jub xocc doonte bàkkaar dina ko def ci bis bi ay yoon yoon waaye saa yu ko defee rek tuub tuub gu sell delluwaat ci boromam rek na rafet njort rek te bañ a naagu te tuuba ko tuubaat rek na xam ne saa yu tuubee rek jégal nañ ko moom wala yastaxfir nay jéggalu rabbahu boromam weer joo dana yaakaar it rahmatahu yërmandeem wa yaxaafu te muy ragal xazaabahu mukkalam nga xazaabahu waaye te zakkaru tamit fàttaliku ni amatahu xéewalam nga la dahi fa moom waaye shukuru te muy sant faddalahu ngëneelam xaalihi ci moom bil ahmaali ci jëf ya bi faraidihi ci farataam ya wa tarkima ak bàyyi la nga xam ne yukrahu def ne si fi'luhu ak jëfam waaye taqarrabu te muy jageñ lu ilahi jëm ci yàlla bi maa ci la nga xam ne tey sore jàpp dina la hoññeel ko min nawaafil xayri ci naafila yiw nee na nay jégglu fu mu toll ndax bari jégglu moom bokk na ci yi tax a set ci bàkkaar ci tax a mucc kon nay baril astaxfirullah ak xeeti wax yi ni jégglu yi bu mu ci man rek di yaakaar ne yàlla jéggal ko yërëm ko te it nag lu mu jégglu jégglu ak lu mu bari bari lu baax mu teel na cay boole ragal ndax ndegam xamul ba xam yàlla jéggal na koom déet xamul ba xam la muy def yàlla nangu na koom déet kon day boole ragal ak yaakaar yaar yépp ndax ragalu kese day indi ak naagu yërmande ragalu kese bu ëppee day indi naagu yërmande waaye nag rafa njort bu ëpp itam day indi ak ñeme yàlla ak sëgg ci bàkkaar yi kon nag boole yooyu yaar ragal ak yaakaar moom lu war la ci jaam bi nay fàttaliku ci itam xéewal yi ko yàlla xéewal di ko ci sant ndax bu dee fàttaliku di ko yàlla xéewal dina tax mu rus ku bañ koo mooy kon nay fàttaliku xéewal yàlla yi di ko sant ci kaw jëfe li yàlla farataal tey moytu lépp lu yàlla bëggut te it li nga xam ne waru ko waaye lu baax la te xam ne ne moom yàlla bëgg na ko di ko jéem a baril ndax yàlla lim gën a taamu mooy def faratay waaye boo ko weesoo itam lam gën a taamuwaat mooy baril xeeti naa fi la yiw yi wa kullumaa lépp loo xam ne tayax sànq na ko min fara ibihi ci ay farataam fal yëf xalu na ko def al aana léegi wal yarxabu te na xem ilallahi jëm ci yàlla fi taqabulihi ca nangoom nga wa yetoobu te muy tuub ilahi jëm ci moom min tadyihi ci sànkam ne lépp lu masa sàggane ci farata yàlla yi rek nag koy jéem a dabaatal fas ko yéene def léegi ki bu amee ay bori julli mbaa bori asaka mu taxaw temb ci fay leen bu baax te xemmem yàlla nangul ko ko te jégal ko yéexe gam ko yéexe ba booba wal yalja te na wéeru ilallah jëm ci yàlla fii maa ca la nga xam ne xasura jafe na xale yi ci moom min qiyaadi nafsihi ci wammat bakkanam wa muxaawalati amrihi ak sàkku mbiram mu waqi nan mbir mu muy aji wóolu ne annahoo naka moom yàlla almaaliku mooy aji moom li salaaxi sha'nihi ñeel yiwub mbiram wa tawfiqihi akuk tawfiqalam wa tasdiidihi akuk jubalam la yufaariqu du teqalikoog zalika loolee xalaama ànd ak la nga xam ne fii nekk na ci moom min xasanin ci aj rafet aw qabihin wala aji ñaaw mooy lu bon wala yey asu te du naagu min rahmatillahi ci yërmande yàlla nee na bu gisee wommat bakkanam jafe ko aw ci yoon jafe ko na wéeru ci yàlla rek làqu ci yàlla te xam ne yàlla moom lépp lépp ci loxoom la nekk moo ko mën a tawfiixal moo ko mën a jubal ba mbiram baax mbiram jub kon nag lu mën di xam ci boppam ci lu rafet ak lu ñaaw lépp rek na wéeru ci yàlla tey góorgóorlu te yaakaar